maaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la Equivox TV tey ñu ngi nii ak monsieur Cheikh Tidiane Ba euh, ñu ñëw war a waxtaan ak moom ci ki nga xamante ni moom la tuddee drapeau le 19 muy El Hadj Papa Dieng euh, Cheikh Tidiane ñu ngi lay ziar. ñu leen di ziar leen sant euh, si ñëw bi ngeen ñëw tey di ma def loolu loo xam ne sawar naa si lool ndax wax koo xam dama amee cof am cofeel si moom ma bëgg ko lool muy suñu mag. suñu xarit El Hadj Papa Dieng dama koy tooñ souvent du ma wax dama yow du ma la wooyee élage Hadj Papa ñu mag ju baax la wax dëgg man li may fàttali ko wax nit ñi. les actions sociales au niveau de la Médina ñu bëri ump na leen waaye moom rek laa gisoon El Hadj Papa Dieng moom laa njëkk a créel l' association Proxime Jeune ñi ko xam nag bëriwuñu waaye loolu day mandargaal euh, Pastefam si mbirum Médina Pastefam si mbirum xale yi ndax moo ñu magoon lool waaye dafa daan ñëw saa su ne di fekk suñu ay réunion di ñu conseiller di waxtaan ak ñun bu loolu wéyee nag dafa nekk sama magu bopp ndax musuñu réeroo man ak moom bi ma nekkee impôt ba léegi day ñëw di ma conseiller di waxtaan ak man di ma wax ay projet am loolu koo bëgg rek koo am cofeel rek nga koy doxal te moom de mu ngi koy doxal saa su ne. liñ ko tuddee tey nag man bettu ba dina am lu ëpp lii incha allah ñun de yéene nañ ko lu rëy ñun waa Medina rawatina man bi nga xam ni relation particulière laa am ak moom. mu neexee yàlla am na ay yeneen bis yu koy xaar yàlla suñuy bis bokk ñu sargal ko wan ko ni moom de ni mu mel la ñu bëgg a mel bu ñu nekkee. bu ñu amee at yi nga xam ne toll na si di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko suñu kanam bàyyi ko mu am wér ah ñam ba nga xam ni dina mën a di continuer servir le sport sénégalais dina mën na di continuer le Sénégal tout court mhm. jërë ngeen jëf